Hmm, maa ngi juddoo Medina waaw Medina hmm, Grand Yoff la màggee ba mu am ñaari at ñetti at après ñu jógee foofu ñu tuxu dem dem Géejawaay Géejawaay foofu la foofu la commencé foofu la commencé jàngi dugg école foofu la commencé jàng français après euh, waaw mi am ñaata fukki at ñett ci laa dem collège après Guédiawaye laa màggee après euh, mu jóge foofu dem lycée Parcelles Assainies foofu laa amee sama baccalauréat mu jóge foofu mu amee sama bac après. Hmm, ci laa demee euh, université université foo laa commencé jàng jàng ba yaakaar naa ba 2012 euh, 2012 laa jógee Sénégal ñëw Suisse léegi Suisse nag maa ngi fi depuis def naa fi léegi yaakaar naa ñetti at. ça impacte beaucoup en tout cas en fait la nouvelle génération on parle wolof et français en même temps ce qui fait que maintenant on a grandi avec euh, vu qu'on fréquente l'école en fait on est toute la journée à l'école du coup si on sort ou bien la, durant la récréation aussi tu vois euh, les les professeurs nous ont habitués à parler tellement wolof que à tellement français que même si on sort durant la récréation euh, on a une pause euh, une heure de temps là aussi en fait on nous impose à porter les Du coup, même en récréation, tu ne peux pas parler Wolof. Si tu parles Wolof, on va te punir. Ce qui fait que maintenant, on, est tellement habitué à parler Wolof, à français et Wolof en même temps que la nouvelle génération, maintenant, ils sont obligés à faire. On est obligé d'emprunter, en fait, de switcher des fois sur le Wolof, emprunter des mots en français. Mais c'est difficile, ce sont nos parents quand qui peuvent parler Wolof correctement sans, employer un seul mot en français. Quoi.